donc bu ma gisee ku ma ci ëpp xam-xam nag dinaa ko topp. mais ëpp xam-xam ci état doyul. li may wax du ay jàngum école de jàng ay science politique affaire waxuma loolu de mais état dama dëgg ñu bari ñoo xamante ne dañ naan tubaab yi ñoo créé état yàlla moo créé état. yàlla nu mu créé état. xaaral ma wax la nu mu ko créé. yaa ma ko laaj nag. waaw <laughs> expliqué yàlla moo créé nit ñi yàlla yàlla sos yëpp mais dafa bëgg a xam yàlla nu mu créé état. ma lii c'est le nom nga lii nii. Mhm. la terre. Mhm. mooy alam bi yëpp. donc li yàlla daf ko taal lii mooy partie bu visible lii mooy partie bu invisible. gis nga lii c'est le centre de la terre. léegi xoola allahu. ahad ahmad muhammad. léegi xoola gis nga fii c'est la lumière. Allahu c'est la lumière. non alif bi. ok alif bi mooy la lumière. ah. léegi fii nga am l'unicité <coughs> am la spiritualité. muy ahad. ahad moo boole ñaar yëpp. Mhm. donc l'unicité mooy leer bi génne ci yàlla. Mhm. léegi leer boobu bi mu génne dafa am doole de telle sorte que. yàlla léegi daf koy def ay biddéew yu bëri mooy les cent vingt quatre mille prophètes. daf ko écarté. léegi cent vingt quatre mille prophètes yooyu moo indi spiritualité donc boo diggee moo divinité divinité si spiritualité la démarré léegi lii. mooy état nag mooy état. Ahmad mooy état. voilà gis nga Ahmad ak Ahad. Uh-huh. mim bi moo leen wutale. donc fii kii moo njëkk génn si yàlla kii bu mu génnee dafa am doole ba su fekkoon ne da nga koy xool. da ngay gumba su fekkoon da koy laal sa loxo day lakk. Euh, léegi yàlla yàlla wàccee intensité bi ba def ko Ahmad. def ko ah, def ko Ahmad. léegi bu mu ko defee Ahmad dafa mel ni léegi ahad mooy farine bi nga jëndee si boutique bi xam nga boo jëndee fariñ bi si boutique mënoo si def dara. Mhm. nga tooyal ko tooyal ko bu mu mën a jël forme yëpp. moo tax kii am miim kii amul miim. mu nekk Ahmad donc Ahmad bi mooy farine bi nga xam ne yàlla mën na ko jox bépp forme. Mhm. léegi nag gis nga lumière bi si boppam. dafa am ay secret yu ci yàlla def. loolu moo tax ngay dégg ñuy wax des envoyés ay messagers parce que secret yooyu noonu moom la lay xamal moo tax lii nii bul bii nii mooy wala asri parce que bul bi day tourné léegi yàlla mu ne wala asri li fekk jamono mi ngi dox mu ne man yàlla damay rocci secret yi ma def ci leer bi ci bërëb yi ma ko denc ak doomu aadama yi ma ko jox di ko joxaat ñeneen moo tax bi ma ñëwee fi may wax fin de cycle ma ne kilifa diine yi seen temps jeex na parce que xam-xam yi nga xamante ni moo tax sëñ créé mouridisme ma kilifa yooyu tey juddaat nañ ci yeneen kër tudd yeneen tur sant yeneen sant. te sant ñu Mbàkke. voilà gis nga lii nii xam nga def ma trait continu. Mhm. ay trait laa def. Mhm. donc benn trait bu nekk mooy ruuwu doomu aadama mooy temps bi nga def ci kaw suuf mais mooy jamono aussi donc yàlla secret yooyu lay joxe. moo tax ma ne Sénégal boo gisee ñu def ay màggal ay appel ay gàmmu di wasifa di werd di jàng xasaay parce que li meññ Sénégal yàlla daf ko bind ci leeru yonent bi saa sallam donc loolu moo tax kilifa diine yi yàlla joxoon leen mission pour ñu liggéey ci leer boobu léegi buy dellu si waat si jamono nag mu wàccaat ci réew mi moo tax 2024 kiy jiite réewum Sénégal boroom xam-xam lay doon du doon une personne lambda. ci saa ak rek ci saayir ak ci baatin moo tax ma doon wax naan temporel ak spirituel yëpp lay téye donc état léegi fii gis nga tur bi. tur bi dañ koy diviser en deux. Ben Mohamed. voilà ba pare enveloppé ko. lu tax ñuy diviser Mohamed en deux. parce que gis nga lii walla lii gis nga lii. Mhm. mooy li bët di gis. léegi au-dessus mooy li nga xam ne bët gisu ko. Mhm. donc yàlla bu lay xamal boppam lii voile bi lay dindi donc boo gisee tour bi li nga xamante ni mooy cercle bi ko ëmb day wane trois dimensions wu tour bi donc moom moo ëmb lépp si moom la lépp di amee si moom la lépp di mate donc gis nga schéma bi boo ko tracé ba mu mat c'est le Coran c'est la Torah c'est la pipi léegi nag nga génne espace yi ma la doon wax fii mooy li bët di gis lii léegi lii le destin fii la nekk donc da ngay dégg ñu naan la jullit bu jigéen mënul sëy ak koo xamante ni du jullit jullit bu jigéen mën na sëy ak athée mën na sëy ak chrétien mën na sëy ak juif mën na sëy ak ñëpp gis nga ki taxaw di julli ci garab bi ñaan garab ak ki taxaw di julli si juma ñoo am parce que sëñ Touba dafa am lu moo dafa ne ad durru wa nafaw min arrahmaani léegi xoolal booy firi techniquement dafa ne ad durru mooy leer bi nga xamante ne dara taxu ko mu ne wa nafaw moo solu ci bépp jëm. mais pourquoi nga choisir euh, exemple jullit bu jigéen bi. pour pourquoi jullit bu jigéen mën a sëy ak euh, euh, ku dul et d'ailleurs fan yi maa ngi dégg ñu naan catholique yi yéefar lañ catholique du yéefar. loolu laa wax. catholique mën na la yéefar existé wul. voilà yéefar mooy ku gëmul dara mooy ku gëmul yàlla. <laughs> catholique yi ils en Dieu. moo tax man c'est une religion ma ne. et xam nga yow ñi ngi wax ni sax dañu religion. man nee naa l'athéisme c'est l'expression la plus parfaite de l'unicité